asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi nii nag toog ak kenn koo xamante ni yaayu Sidath la yaay booy ñu ngi lay nuyu darga la tey nga ñëw ci sa ngénte doom ana lan moo nekkoon sa ay kàddu la nga ñu mën a wax rek ci Sidath. Papa Demba. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar yëpp leen delloo nuyu bu baax. ne ñu ngi doggeel nag bu baax askiya la dañu ñëw ci ngénte Sidath yi Sidath ñu ne yaayam ñoo bokk ndeeg baay. ne di ko wax ni rek. mais Sidath lii macha allah avant man sax da fi ma war a commencé commencé dama waroon a nuyu sama papa sant ko gërëm ko ak sama yaay di ñaan yàlla fu ñu tëdd yal leen yàlla yal na sedd seen kaw yàlla xar leen àjjana sëriñ Maam Abdou wax ne man macha maay seen rak ba quatre heures du matin yaay si daati moo ma yar wala cinq heures du matin si daati kër Tiwaawan si daat nekk xale bu baax bu yaru bu am diine am lislaam fonk ñu fonk ñu wutaluñu ñu ak yaayam dara xam nañu teg nañu suñu place waaye ku ko soxla ñu koy ñaane yàlla bés bi yàlla dogal na boo ko jaarul ci moom yàlla dund ba doon doomam ji ci jëmmam ji di ko teral lu woyof comme ni mu teralee yaayam mais ragal na mu jafe lool man nag sama wax du ci bëri ndax man wax wax laa tële <laughs> waaw waaye boobu de loolu rek laa amoon ci lu ma ciy sànni xale bu baax la bu fonk yaayam fonkuñu dem suñu place xam ñun ñooy ñan bëgg mbokk si daal nit ku bëgg mbokk la macha allah lu moom da koy partagé ak ñun ñëpp dëgg yàlla am ñu sens interdit ci këram buñ fi ñëw lu neex na ñuy def mu xam ne ñun ñooy yaay mu accepté lépp mu ko ñaan moom tam li yokkute mu yokk ba yëg ko élection 2019. nee soxnaam nekk xale bu baax. président ndax xam nga ba mu takk léegi macha allah décembre la woon rek. la la ko takk ak léegi nii xale bi ñëw wax dëgg yàlla yor ko soom tam di ñëw. fii si daal teg tànkam teg tànkam mama mama mama rek suñu ñëwee lu ñu neex la ñuy defal di ñaan yàlla seen sëy bi barkeel. seen du màgg ba di leen teral ci barke Seydina Muhammad ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi sant sunu ñaari waajur di sant sunu mag jigéen bi di yaayu sidaati ndax mooy sunu taaw ñoo bokk ndey ak baay maa ci boo gis nag gàtt xel la waaye man maa raw sama diggante ak sidaati ndax sidaati bi mu juddoo yaayam man la ko may man maa yar sidaati man maa ko yar sidaateem sidaati man la ko yaayam may. ne féetale ma ko maaseeg sama doom ñu doon ay seex man may yaayu si. war ci ñay ba wàcc loo war di mu ndaw. bu muy door métier bi nekk xale. ne suur nañ démb. tey nangul yaayam déggal ah. yaayam lu ko yaayam sant mu defal ko ko. liggéeyal na yaayam lu ne. nangul na yaayam lu ne. jaayal na yaayam lu ne. nee fa tabaarakallaahu. ndax bëgg yaay. nee nga nuyuwaat bu baax. nangul na lu ne bi muy xale. jaayal na yaayam lu ne moom. xanaa moom. lu ne. mu dem bani lu bon rek la jaayalul yaayam. demal ak say bopp. waaye jaayal na ko lu ne. di ko bàyyi boppam di ko yenu ci diggu boppam bii di ko. jaayal yaayam si daati foog mu am lu. moo ne incha ci kattanu yàlla. sama xarit mu bàyyi du ma ko bàyyi bokk ak yaayam ndey ak bàyyi mu bëgguñu day bañ noonu ko soldam bi kenn araamalu ko moom dafa ne nag maa ku gis a gàtt xel waaye man maa ci raw ndax dafay dégg-dégg réew vive ma ragalu ko ma téléphone ni ko waa góor gi mun ma yaay noppil bul wax dara yow sama xarit nga yàlla sàmm si askiya yàlla na ko yàlla sàmm yàlla sàmm làq ko fa yàq yeggul loolu gi yàlla na ci damm ci dara jo yoon ci al Muhammad sallallahu alayhi nii sama yaay daan bootee sunu papa yal na gàmm ko ko bootee noonu te bu ko bootee yal na ko rokkati ci daraja yonent bi sallallahu alayhi allah sañse bi sañse bi sañse bi rafet na tey ngeen tëlee dafa ala daw mi ah <laughs> jëlal ma kii te ñëpp laa dégg micro tey parce que certainement am na témoignage ah, si daal sama frère. yoro billaay yow mun ma wax yow. kër Ablaye Dia jàmm rek laa ko yéene sama grand frère la suñu ñaay yaay ñu bokk ndey ak baay waaye bokk ci famille bu riche na famille bu noble lu baax ci suñu yaay lan ko jànge ak suñu papa vraiment maa ngi koy ñaanal di ko souhaiter le meilleur daal. yaa tey nga ñëw teewee li nga xamante ne moom mooy ngénte bu Sidath ana yan kàddu rek nga ñu mën a dénk ci ki nga xamante ne moom mooy Sidath. ah sant yàlla rek jul ci Seydina Mouhamed sang-sang yi sant sama ñaar waajur di sant nag sama doom ju góor di Sidath maa topp ci yaayam muy xale bu yaru nag macha allah bu respecté yaayam respecté ñun ñëpp nag ñu bokk yaayam day baay di ko ñaanal yàlla mu yeggal ak sagoom fekkee ah, njariñu njaboot eh, lan moo la gën a neex ci siraat yëgam yëgam moo ma dàqal ci moom ak générosité mi siraat yi yëg na nit yëween na macha allah xale bu yaru la bu bëgg mbokk yal na yàlla fay ko yàlla mooy dogal Seydina Mohamed yàlla dund ba di ko xalafal di ko jox jabar ci barke yonent bi te ñu fekk ko te tal ko macha allah. di métti lu nag ñàkk fekke rek sama rakk ju góor ju baax ji rek nag tubarkàlla ñàkk koo teewe rek métti ñu rek wax dañu sant yàlla julli ci yonent bi rek xam ne nag macha allah li ko yóbbu bàyyiwu fi kenn macha allah yal na yàlla suuf ci kawam am wala julli ci barke yonent bu tedd. alors salaamaaleykum mbokk yeeg xarit internet yi tey ñu ngi fii ci euh, Mamel ki nga xamante ni moom mooy animateur bu mag bi di Sidath Thioune moom nag moom mooy ngénte ñu ngi toog ak soxna soxnaam madame Thioune madame Thioune nuyu nañu la dafa mel ne tey mbégte ak contentement tey ci euh, gan gi nga xamante ni gana si ne leen muy euh, princesse Thioune ñu tuddee ko ki nga xamante ni moom mooy sëñ Askia ana lan mooy sa kàddu. asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi kontaan si yéen kontaan si ñëpp kontaan rek am mbégte mbégte rek mbégte yàlla yàlla bi mu ñu bi ma boolee sama borom kër mu baax lool mu yàlla may ma si tamit Seydina Mouhamed ñu tuddee ko Askia kontaan waaye ñun ñii mën nga ma wax rek un sa diggante ci Sidaat Thioune bi nga xamante ne animateur la Sénégal ñëpp xam ko. sama digganteeg moom amul dara lu dul mbégte jàmm ak salaam jëkkër ju jëkkëru njëkkante la. jëkkëru njëkkante la. si jëkkëru njëkkante la. xam euh, yéex a xam laay laay rëccu ci moom de waaye du du du du xam bi ma ko xam dama ko yéex a xam loolu laay rëccu ci moom. lan lan ngay wax rëbbkatu jëkkëru jàmbur yi. Ah? lan ngay wax rëbbkatu jëkkëru jàmbur yi xale jigéen yi rëbb jëkkëru jàmbur yi si boo goos la de. waaw mais boo goos la moo tax. macha allah sañse bi en tout cas na lan ngay wax ñi nga xamante ni tey ñëw nañu fekk si la gis nañu fi Birane Ndour ñëw na Abi ñëw na oustaz Pape Hann waa TFM ak yeneen artistes yoo xamante ni gis nañ leen fi. waaw maa ngi kontaan si ñoom rek kontaan si ñoom rek moom moo ko liggéey moo tax su melu woon noonu am na nu mu doon mel kon kenn du ko wuy si mën nga jënd mën nga louer chaise louer bâche doo waaye nit ñi mënoo leen louer moom moo mel noonu nitu kese la daal te kontaan naa trop trop trop. aywa ñun a ko naa xam naa la retenir ndax ñu bàyyi la rek en tout cas tey ñu ngi fi yéenandoo ak yow ah, topp ci sañse ma bàyyi la caméraman mu jóg nga jëlal xamante ni moom la génn ci suba si kooku may madame Thioune tey fii ci Mamel bi nga xamante ni prince Thioune on rappelle que ni ah, doom ko tuddee ki nga xamante ni moom mooy sëriñam di sëñ Askia Touré ah, waaye jël ko li nga xamante ni moom mooy Seydina Mohamed donc loolu mooy xew tey fii ci diwaanu Mamel